nuyoo suñu mbokk internet yi. waaw euh, damay wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di sant yàlla bu baax di ko sant di ko sant di ko sant di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant sëriñ Touba Xaadimu Rasuul sama Serigne sama wasila sama yaakaar see ëllëg di beral nuyoo nag sëñ Muntaxa Mbàkke di ko ñaanal euh, yi mu yàgg fi lool te ànd ak wér na fi yàgg lool Mbàkke di beral tamit nuyoo sama xarit. sëñ Moustapha Sy as Siddiqu macha allah maa ngi koy ziar bu baax a baax a baax si di ko jox wàccuwaayam te nuyu waa àddina ba yëpp bàyyiwuma kenn kenn kenn maa leen di ziar bu baax di leen jox seen wàccuwaay. dara lan lay doon ngir rek jàmm gën am fii Sénégal. comme ni nga ko waxee gisaane kat maanaam man du ma du ma d'accord dama naan ki yàlla di woon. ki yàlla di woon ndax fii yaakaar naa ne amagul kenn ku fi taxaw ne suba nangam dina am mu am gisaguma ko ci ci ñoo ñi ma bokkal. ñuy liggéey maa leen ko ñaanal ñoom tamit li ma yàlla may mu may leen ko la mu may leen lu ko ëpp ëllëgu Sénégal dara du ci nekk lu bon xaraam du am macha allah wala yi fi tëdd nag yoo tamit ñoom duñu ay faux ay vérité lañu ñoom dañu dëgg li koy faj daal mooy toog waxtaan ne doon def di woo ñuy toog muy waxtaan ak ñoom naan leen lii la ak nangam ak nangam dama bëgg ñëpp dal ñi nekk ci opposition bi nañu dal waa gouvernement bi nañ dal ñu toog waxtaane ko bu nekkee am na yoon def li mu war a def su nekkee amul ñu gas wax ji ba mu xóot ñu suul ko te jéem a lijjanti suñu petrol bi ndax yitte woon nañ ko yitte woon nañu gaz bi yitte woon nañ jamaa yitte woon nañu or lépp luy suqale suñu koom-koom fii senegaal Sénégal ñun yitte woon nañ ko ndax dañoo am ay doom te liggéeyuñu am ay grand frère te liggéeyuñu xale yu jigéen sax war nañoo ba ne liggéey man ma sañoon Sénégal barakati laa ilaaha illallaah Muhammad Rasulullah taaw naan ataaya sax kenn du ko am billaahi wallaahi wa nañ def ndànk rek ndax ku ko bëgg a taal nag yaay tàkk lu leer laa leen wax ku ko bëgg a taal di nga tàkk kuy indi fitna doo doon mukk président yàlla buggul boroom xët-xët foog ñuy def ndànk di dal waaw man Selbé Ndom maa ko wax nañu dal waxtaane ko bàyyi marche bi nit ñi di ci dee nit ñi di ci xëm ñu leen di xaañ deret kenn mënu koo jënd lépp daal bu ma sañoon ñu def ko ci dal man nag maa gën a tuuti Sénégal doon ko xeebu waaye nag ma yëgal leen ne taalibe sëñ Bamba de bu xeebu nag waaye bu am fulla bu mën a wax dëgg te xam ko man balaa ma gëm ne Aliou sàll moo luubal xaalis boobu ma gis ko mu leer ñu xaal ba mu leer su boobaa ah danañ delloo suñu alal